ñi bokk alliance pour la république ci Touba foyetuñ li nga xam ne moom mooy parrainage bi collecte bi tàmbali nañ ko mu nekk benn test boo xam ne dañuy jëm ak moom ci élection présidentielle yi Abdou Ahad bi nga xam ne moom moo jiite parrainage boobu ci dëkk bu sell bi mbooloo mu takku moo ko dalal ci théâtre de verdure bu Mbàkke wax nañ ne benn mëbët lañ am fexe bu Macky Sall am ndamam lu jëkk ci Touba ci février 2019. ma wax dëgg kat nit buy sonn te dimbale woo ko bu toogee bu ko neexee mën na la bañ a te doo ko xarab loola nag dama bëgg département Mbacké participer contribuer actionnaire ci nekk ay actionnaire principal ci élite président de la république ngir que mu mën ñoo récompenser lu ñu développer département bi ci ci économique ci infrastructure yëpp yi ñu soxla. jamono ji nag fukki maire ak juróom yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci Touba ak li ko wër wàll si nañ ci Benno Bokk Yaakaar. muy mbooloo moo xam ne yokk na leen fit ak yaakaar ci élection présidentielle bu 2019. maa ngi ñaan ci barke Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasul dynamique unitaire bii nga xamante ni mboolem maire ak responsable politique yi nga xam c'est des engagés mooy ñi ñëw ak ñu yónnee kenn ku ci nekk nga gën a takk sa ndigg ñu ànd liggéey doon benn te muñalante jëm ci li nga xamante ni moom la président bëgg mooy le parrainage lim soxla. ci ay parrain fii ci département bi nañ ko jox lu kawe njorta te loolu ñu continuer ko ba keroog élection mu gagné les au premier tour. bi ñu jàkkaarloo nag ak mbooloo mu takku mi nga xam ne bàyyi ko na fu nekk ñëw ci terre de verdure bu Mbacké ñoom ñi bokk ci APR wax nañ ne li tax ñu làng ak Macky du lenn lu dul li mu def ci dëkk bu sell bi bokk na ci autoroute Ila Touba ak ñaar fukki tronçon yu bees yoo xam ne benn bu ci nekk dina mot juróom-ñaari kilomètre ci li gën a gàtt ak ñaareelu corniche Touba bi nga xam ne buñ ko xaymaa dina toll ci fanweeri kilomètre wër dëkk bi ngir yombal dem beeg dikk bi jamonoy màggal bi